réew Afrique yi nga xam ne ñoo gën a bëri jullit eh, ñooy bëgg ak France ñooy njëkk a wootew indépendance parce que islam ci boppam moo bindoo islam dafa méngoog communisme dafa méngoog eh, eh, esclavage dafa méngoog lu bëree bëri moom Baye mo moo jël xalimaam bind ko tontu ko tontu goo xam ne wax dëgg yàlla ba tey jii dañ ko waroon di jàngale suñu école yi parce que ci jamono nga Euh, néwon na ku ñeme ba ci suñu homme politique yi ñom ñëpp dañ négocier indépendance bi kenn ñemewul won taxaw carrément indépendance mom mu bind lu mel nonu tontu ne nak Afrique bi dañ ko wara dello africain l'Afrique aux Africains lolu dimension il faut tam dimension suñu nitu diiné yi bëri na suñu nitu yu dox yu mel mu bind ko xam nañ gannaaw indépendance groupe bu homme religieux yi ak euh, Gaynde Fatma Mbacké ak euh, euh, Abdou Aziz da baax ak ñu mel noonu ñoo xam ne dañoo taxawoon bi ñu bëggee jaxase suñuy affaire ba bëggoon ñu imposer benn code de la famille boo xam ne dafa noonu jargati suñu mode de vie ñoom dañoo mëne woon combat bi ba jamono jooju sengoor dellu gannaaw moo tax lu bëri ñu am ko tey suñu code de la famille mu dëppook suñu dundin kon ñoom dañoo teel a xam ni ñaar yooyu du ñuy séparer parce que nit boo tëjoo sa jàkka suba ak ngoon di wérd te environnement bi la yor bi la wër yëpp baaxul boo moytul nit ñi nañu xëy dal sa kaw kon loolu itam dimension yi loo xam ne yu am solo la su ñëwee ba fii nag am possibilité waxtaan ci dañ ko aborder euh, fàttali ko aussi suñu concitoyens sénégalais yi ne leen euh, léeg-léeg gis nga barki démb am na benn jigéen bu jàmbaar sax Nathalie Yamb la tudd defe naa am discours bu mu def mu Russie réseaux sociaux yi jël ko ñu yëkëti ko ba ci kaw té lu rafet la parce que dafa discours fierté pour l'Afrique mais nañu am références jamono ji nous étions sous la colonisation wax avons lu mel bind ko kon nañ koy wax sénégalais yi ñu am ci fierté aussi صل وسلم دائما أبدا على حبيبك